jàppal ne ña am darajey toppatoo deret ja buñ dee ay góor ak i jigéen tolloo daraja góor ñi rek la ñuy déglu seen kàddu waaye jigéen ñi moom kenn déglu seen kàddu waman koo xam ne xufi yi jéggaleef na xan walis ko bil xam di ci dereti tey reyu tey daal dóori ba kon dóoreef ko ni atan téeméeri yar waxu bi sa ti tëjeef ko xaaman at képp koo xam ne nag rey ga mu rey moo ko tey tey it diir fayantoo ca moom ndax benn ka mu rey da koo baal mbaa waruñoo fayu ci moom ndax daa ëpp daraja ka mu rey ni ki ab julit moo rey ab yéefar képp ku rey reyu tey daal te waneesu ko rey daal faaw ñu def ko lii mu la wax mooy faaw ñu dóor ko téeméer yar tëj ko at ndax bakkan dafa diis ñu bëgg bu ëllëgee rek bañ koy defatee waddiyatu diya xaalaa ahlil ibili war ñañ gëleem ya mi atun téeméer la dina ibili ci ay gëleem waxalaa ahlil zahabi bu deej ñañ wurus alfu dinaarin junni dinaar la waxalaa ahlil warixi bu deej ñuñ xaalis gis naa xasira fukk laa ñaar alfa dirhamin ci junni dërëm ñen dañuy seet ña war a joxe diye ja luñ ëpp jëfandikoo ci alal su fekkee ne su fekkee ne gëléem mooy seen alal kon diye ja téeméeri gëléem lay doon su fekkee ne wurus mooy seen alal kon junni dinaar mooy doon diye ja bu dee xaalis nag fukki junni ñaar ci ay dërëm lay doon li mu ne bu dee ñuy jëfandikoo xaalis fukki junne ñaar ci ay dërëm lay doon moom dërëmu yoon lay wax dërëmu yoon nag boo ko dee seet li ko manqué ñetti ngaraam mooy rek vingt cinq milligramme vingt cinq milligramme rek moo manqué dërëmu yoon ñetti ngaraam te biñ ko seetee bu yàggut benn ngaraam rek ci xaalis bu sell bi war naa jar deux cent quatre-vingts nga xam ne kon soo defoon dërëmu yoon muy ñetti ngaraam yu mag nga daal di wax ne benn dërëmu yoon jamono yi ni ngi tolloo huit cent quarante huit cent quarante nag boo ko defee ba muy douze mille maanaam fukki junni ak ñaar kon da lay jox dix millions yu tegal quatre-vingt mille nga xam ne kon boo ko seetee ci noonu bu dee ñuy joxe di xaalis ci xaalisu CFA bi dana war a mat dix millions yu tegal quatre-vingt mille te boo bàyyee dërëmu yoon na mu toll muy deux virgule neuf cent soixante-quinze maanaam mu nekk ñetti grammes yu manqué vingt-cinq milligrammes benn dërëmu yoon day tolloo te comme benn ngaraam bu ne deux cent quatre-vingts du ko sori léegi loolu boo ko seetloo benn dërëmu yoon day toll ci huit cent trente-trois huit cent trente-trois nag boo ko defee ba muy fukki junni ak ñaar mu daal lay jox neuf millions neuf cent quatre-vingt-seize kon di yey xaalis CFA bii ci yooyu jamono day tolloog neuf millions neuf cent quatre-vingt-seize wadiyatul hamdi di yey tey ida qubilat ndéem nanga wof na ko xam suñ juróom lay doon wa xishrun ak ñaar fukk xiqatan ci ay xiqa wa xam suñ ak juróom wa xishrun ak ñaar fukk jasaxatan ci ay jasax wa xam suñ ak juróom wa xishrun ak ñaar fukk binta laboon ci ay binta laboon wa xam suñ ak juróom wa xishrun ak ñaar fukk bintu maxaadin ci ay bintu maxaad su fekkee ne moom rey moo ko tey te ñu nangu koo laaj di te bàyyi ko bañ a fayu ci moom kon dañ koy wax ne ko xiqa joxe ñaar fukk juróom jasaa joxe ñaar fukk juróom mu daal juróom fukk bintu laboon mu joxe ñaar fukk juróom bintu maxaad mu joxe ñaar fukk juróom bu ko defee lii boo ko boolee téeméer lay doon. wadiyatul xatay di tayeful nag mu xam masat luñ juróomeel la xisroona ñaar fukk min kulima ci lépp li nga xam ne zakar naa tudd nañ ko wax xisroona ñaar fukk banoo la boon ci ay banoo la boon zukooran yu góor nee na bu fekkoon ne nag kooku teyu ko moom dañ koy wax ne ko yenti xeet yee ñu weesu bu ne joxe ñaar fukk ba nag boole ci ñaar fukki banoo la boon kon nañ koy joxeloo ci xeqa ñaar fukk yasaxa ñaar fukk bintu la boon ñaar fukk bintu maxaab ñaar fukk ak ñaar fukki banoo la boon su ko defee buñ ko boolee muy téeméer ba tey muy gën a woyof nag nay nga xam ne moom la ka tey di joxe wa innama tuxallazu naka def na taral taral mooy mettil ak tiisal addiyatu dieja fil abi ca baay ba yar mi mbir moom dafa sànni ibnahu doomam bi xadidatin ci weñ gu ñuul fa yaqtuluhu te mu koy rey fala yuqtalu di fu ko reye bi ci rey doom ja daa tudd bàyyi rek waaye maam ju góor ci la ak maamaat ba tey yaay ak maam mu jigéen ci la bokk ñii koo ci xam ne rey na doom ji mbaa sët ba te jubluwu ko woon a rey defu ko it noo xam ne ku jubloo rey koy def su boobaa kon deesu ko rey de sax bu fekkee du ko jublu woon a rey moom dañuy fayu ci moom rey ko bu ko defee loo xam ne itam ku jublu woon rey moo ko daan def mel ne ren di mbaa xar biir ba it ba tey dañuy fayu ci moom rey ko waaye nag bu fekkee moom rey na ko waaye gis ñu jenn firnde ji wane da ko jublu woon rey kon dañuy jàpp ne kon jubluwu ko woon rey ndax war naa am ñëwante ci moom koo xam si doom la mbaa sët la doo ko di jubloo rey xëy na kon daa tombeeg rek kooka deexe ca loola moo xam da koo sànni weñ gu ñuul moo xam da koo sànni leneen waaye nga takk ne rek moom bu ko jublu woon rey dëgg-dëgg mbaa mu rendi ko mbaa mu xar biir ba nga xam ne moom ku jubloo rey rek mooy def loola dañ koy daal di rey rek moom waaye bu dul loolu nag kon ñu mett lieu ja te nii lañ koy metteele mooy wéya koon dana nekk xàlli yi war ko talaatoona fanweer jataxatan ci jatax wa talaatoon ak fanweer xiqatan ci ay xiqa wa arbaxoon ak ñeen fukk xalifatan ci way ëmb fii botoonihaa yoo xam nekk na ci seeni biir awlaaduhaa seeni doom su boobaa dañ koy laaj téeméeri gëléem muy diye ja te moom moom ci boppam moo ko war a joxe ci alalam te nañ koy laaje téeméeri gëléem ya day metti ndax dañ koy laaj fanweeri jasan laaj ko fanweeri xiqa muy juróom benn fukk laaj ko ñeen fukk yu ëmb noonu lay joxe téeméer ba waxele waxees na ne zalika loole xalaa xaqidati yi war na giiram nga waxele waxees na ne zalika loole fi maalihi nekk na ci alalam daa am ñetti wax bi mu njëkk na wax léegi mooy moom ci boppam moo ko war a fay moom baay bi ci boppam mbaa maam ju góor jooju nga tudd mbaa yaay ja mbaa maam jigéen ji muy wéy am ñu ne déedéet day ànd ak famille ba mbokk ñu fay ko mel ne kenn la ci ñoom rek loolu mooy waqiila zalika xalaa aqilatihi am ñu ne déedéet dañuy seet ba xam su fekkee am na alal te mën a fay moom rek mooy fay su fekkee amul alal nag mu door a bokk ak famille ba ñu bokk fay xam ne kon ñetti wax la wax bu njëkk bi dane moom moo war a fay loolu wax ñaareel bi ne déedéet moo ko famille ba mu bokk ñooy bokk fay mu mel ne kenn la ci ñoom wax ñetteel bi ne su amee alal daal te mën a fay moom rek mooy fay su amul alal nag mu bokk giir ga fay bu ñetti wax wax bu njëkk bi lañ sukkandikoo nag mooy moom ci boppam moo war a fay wa diyetul marati diyey jigéen xala nis fi nekk na ci genn wàll ga min diyeti rajuli ci diyey góor diyee jeeñ waxoon góor lañ koy jox su ko defee nag bu dee jigéen day am xaaju loola léegi bu fekkee da nga ne góor dañ koy diyaale téeméeri gëléem jàpp ne bu dee jigéen ja juróom fukk lay am bu fekkee da ngaa waxoon junniy dinaar kon jàpp ne juróomi téeméeri dinaar mooy doon diyey jigéen wa kazalika naka noonu diyetul kitaabi yii na diyey ko jug téere ya ko jug téere yi maanaam mooy ku bokk ci yahud mbaa nasraan loolu mooy góor ga ci ñoom mooy yemoonteeg jigéeni jullit xam nga da nga ne jigéeni jullit day am xaajub diyey góor jàppal nag ne na jigéen jullit di am moom la góor ga ci ahlul kitaab di am wa nisaahum seeni jigéen xàlla nis fi nekk na ci kenn wàll ga min zalika ci loolee su ko defee nag seen jigéen day am xaaju seenu góor la nga waxoon ni moom la seen góor di am seen jigéen genn wàll ga lay am wal majoos yu ab majoos di yetuhoo di am tamaanu mi ati dirhamin juróom-ñetti téeméeri dërëm lay doon wa nisaahum seeni jigéen it xala nis fi nekk na ci genn wàll ga min zalika ci loolee majoos yu mooy koo xam ne nekkul ci diine ju bàyyi ko ci asamaan mooy nekkul ci taabi yu rek kooku nag buñ ko rayee te war ci ay joxe diye dañ koy jox juróom-ñetti téeméeri dërëm ci yoon dërëm yoon lañ bëgg a wax dërëm yoon waxal nañ nu mu toll jigéen joo xam daa bokk ci majoos yooyu li nga wax léegi ne moom la góor gi am ci xaaj ba nag moom la jigéen di am wa diyetu jiraaxihim diye seeni jam-jam kazalika naka noonee la loolu nag day mel daa dellu ci lim gën a jege muy majoos yi nga weesu mu mel ne buñ jamee jigéen ja dañuy seet la góor ga war a am ñu jox ko xaajub loola waaye nag loolu jàppal ne jigéen ñëpp la kenn ku ci nekk rek jigéen ja day am xaaju góor ga bu ñu demee ci jam-jam ya itam bu dee julit jigéenam noonu lay mel bu dee kitaabiyu jigéenam noonu lay mel bu dee majoosi bi nga mujj wax itam jigéen ja noonu lay mel nga xam ne jigéen ja boo delloo ci wàllu jam-jam ya day am xaajub la góor di am du tee dana leeral nag ne la góor ak jigéen faaw ñoo yemoo ci diya ba kera lañ ca war a fay mat sulu sub diya su matee sulu sub diya nag jigéen door a dellu di am xaaju la góor di am na ko leeral ci kanam wa fil yadayni nekk na ci yaari loxo addiyatu diya ko dagg yaari loxo yi nit yëpp yëpp bu dee yaari loxo yëpp la dagg moom diye ji mat la koy fay bu daggee benn ba daañu ko wax wa kazalika naka noone fir rij lañu nekk na ci ñaari tànk ña aw la xëy nay ni wala ñaari bët ña su daggee ñaari tànk ñëpp moo xam da koo dagg ci dojor ya wala ci bëti woom ya wala ci lupp ya ñoo cee moom da koy jox diye ju mat fekkee dafa fuq ñaari bët ña ba tey diye ju mat la koy jox wa fi kulli waaxidat nekk na ci benn bu ne min xumaa ñoom ñaar di suuxaa genn wàllu diya su fekkee benn loxo ba la dagg wala benn tànk ba wala benn bët ba la fuq su boobaa kon genn wàllu diya day joxe loolu nag mooy bu fekkee ci ak ñàkk tey la te bu fekkee ci tey la moom dañu daal di fayu ci moom mi nga xam ne moo tooñ def ko la mu def wa fil an fi nekk na ci bakkan ba yuqtaxu mbir moom def na dog maarinu ko sukkam wa addiyatu diya ku ku dagg bakkanub nit lépp la dagg mbaa bopp mu dagg sukk wa jëm ca kaw ñooye moo dagg sukk yi ak dagg lépp bakkan bi ñooye moo diye ju mat lay joxe bu daggee leen ni sukk wa rek ñu seet lañ ca war a fay fay ko ca wa fi sam si nekk na ci noppa addiye tuddiye saa yoo xam ne yàqal na nit ab dégg ba mënta déggati rek dana ko war a fay diye ju mat bu dee ñaar nopp ñëpp bu dee benn nopp nag genn wàllu diya woo fi xaq li nekk na ci xel addiyatu diya su ko defee lu ko taxa tàggoog sagoom maanaam xel ma dem benn yoon mel ne ku dof nit bu dóor ko rek mu jaare ci tëlbati waaw su boobaa kon dana ko jox diya ju mat bu ko defee loo xam ne diya war na ca far xel ma demaale ca kon war koo fay yaari diya mel mel ne mu dagg ñaari loxoom wala mu fuq ñaari bëtam mu far ci jaare dof kon ñaar wa fi sol bi nekk na ci ndigg yan kasiru ngir moom dana damm addiyatu diya su dammee ndigam war koo jox diya ju mat wa fil unsa yey ni nekk na ci ñaari waa yàlla ya addiyatu diya bu daggee ñaari waa yàlla am waaye nag dëggaaliwul sàkkara sa kon dana ko jox diye ju mat bu fekkee dafa dagaale sàkkara sa jox ko ñaari diya wa fil xasafati nekk na ci bopp sàkkara ba ak diyetu diya dagg bopp sàkkara ba ak dagg léppi bantu sàkkara ba ñoo yemoo rek diye ju mat la cay fay wa fil lisa nekk na ci làmmiñ wa ak diyetu diya bu daggee làmmiñ wa war koo jox diye ju mat wa fii maa nekk na ci la nga xam ne mën a xateree na min ko ci moom alkalaam wax addiyatu diya su fekkee dëggul làmmiñ wa waaye def na ko lu tax mënta waxati waaw ba tey kon dee ju mat la koy jox moog dëgg làmmiñ wa ñooye moo bu fekkoon ne kooku dafa luu nag moom mu dëgg làmmiñ wa mëntoon wax naka jekk dafa luu woon kon dañ koy àtt rek wax ko lam ci war a fay wa fi saddiyayil mar ati nekk na ci yaari weeni jigéen addiya tuddiya bu daggee yaari weeni jigéen moo xam da koo daggee fam saxe moo xam da koo daggee ca kaw dana fay diye ju mat wa fi xaynil awari nekk na ci bëtub aji pat addiya tuddiya koo xam daa patoon dese benn bët benn bët bu baax bu fekkee da nga koy yàq kon diye ju mat nga koy jox loolu ni ko sant waaye xamuñu lu tax ndax bu dese woon ndax bu dese woon benn loxo ba benn tànk nga dagg benn loxo ba benn tànk ba du tax ñu wax ci dee ju mat koy kenn wàllu dee lañ ciy fay waaye bu dee ko patt moom dese benn bët benn bët bu boo ko yàqee dee ju mat nga koy fay wa fil moodihati nekk na ci jam-jamu moodiha xam suñ juróom minal ibili ci ay gëleem xaañ-xaañ bi ñu wax moodiha daañu leeral ban la ku ko xaañ nit te tëyoo ko kon na nga koy fay juróomi gëleem su fekkee yaa ko tey moom dañuy fayu ci yow wa fi chine yi nekk na ci bañ xam suñ juróomi gëleem koo xam dafa buddi bañum nit wala mu yangal ko lool lool moo xam ban bañ la ci bañ yi dana ko jox juróomi gëleem wa fi kulli isbahi nekk na ci bépp baaraam xasirun fukki gëleem baaraam bu ne rek ci baaraam yi loxo yi mbaa baaraam yi tànk yi bu mu ca dagg rek dana ko war a fay ci benn baaraam bu ne fukki gëleem loolu nag mooy bu fekkee da koo tëyut waaye bu fekkee moo ko tey dañuy fayu ci moom wafil an mulati nekk na ci kóolu baaraam salaasun yetti gëleem wa sulusun ak ceeru gëleem benn kóolu baaraam bu ne rek ku ko daggal nit war koo jox ñetti gëleem ak ceeru gëleem ceeru gëleem mooy boo defoon gëleem ñetti xaaj benn xaaj ba loolu nag ku ko bu ko kooku teyit moo tax ñu wax waaye su fekkee moo ko tey moom la ca war mooy fayantoo wa fi kulli an mulati nekk na ci bépp kóolu baaraam minal ibhaamay ni ñaari baaraam yi dee xam suñ juróom minal ibli ci ay gëleem ñaari baaraam yi day ñoom dañoo am rek ñaari poñ mu ñaari kóol kooku nag kon benn kóol bu mu ca dagg rek war koo jox juróomi gëleem li nga weesoon léegi ne kóolu baaraam dañ caa war a fay ñetti gëleem ak ceer mooy bu fekkee kóolu baaraam ba bokkul ci ñaari baaraam yi day wala ñu jublu woon wa fil mu naqilati nekk na ci jam-jamu mu naqila xushurun fukkeelub diya wa nisfu xushrin ak genn wàllu fukkeel jam-jamu mu naqil dana ko leeral léegi mooy ban ku ko jam nit danga ko war a fay fukkeelub diya ak genn wàllu fukkeel nga xam ne kon bu fekkoon ne ci ay gëléem la kon fukki gëléem ak juróom lay doon ndax fukkeelu diye bu dee ci téeméeri gëleem day nekk fukki gëleem genn wàll gu nekk juróom kon loolu lay doon kooku nag mu tey ko ak mu ñàkk koo tey ñooye moo ndax moom diis ko fayantoo wax dañuy bañ buñ ko fayantoo far koo ko ñàkk ba kanam nga seetlu ne fu ñu fi tuddee juróomi gëleem ne moo war ci nàngam dañoo jublu genn wàllu fukkeelu diye maanaam nis fu xushri tiyati bu ñu tuddee fukki gëleem dañoo jublu xushuru diyati maanaam fukkeelu diya ndax mën naa am ñooña seen alal nekk wurus wala xaalis lii mu mujj a tudd léegi muy fukkeel ak genn wàllu fukkeel ci jam-jamu mu naqi la jàppal ne bu doon ci wurus fukkeelu diya ak genn wàllu fukkeelu diya day tolloog téeméeri dinaar ak juróom fukk bu fekkoon ne ci xaalis la fukkeelu diya ak genn wàllu fukkeelu diya day tolloog junni ak juróom-ñetti téeméer wal moodixatu jam-jamu moodixa maa mooy ba nga xam ne aw daxa weexal na alxasma yax ba yana moodixa mooy bu ko jamee ba nga xam ne dem na ba yax bay feeñ waaye moom nag faawre day nekk ci bopp bi ci jëba wala ci ñaari lax ya foofu lay nekk saa yoo xam daal gaañ na ko ci jëba mbaa ci lax ya ba yax bay feeñ rek loolu moo tudd jam-jamu moo bexa waxoon nañ léegi la ca war wala mu naqilatu jëm jëm mu naqila mbaa mooy ba nga xam ne taara naaw na farashuha yaxam yu ndaw ya min al azmi tukkee ci yax bu mag ba wala mu tasil te eggut le dimaax ba ca yóor ga mu naqila nag mooy bu fekkee gaañ na ko ba nga xam ne laal na yax ba ba mu def ay ferñeent yoo xam ne bu ko fajkat bëggee faj faaw mu toppale yax yu ndaw yooyee ngir mu faj ko loolu moo tudd al munaqila waaye taxul na mu àgg ca yóor ga wamaa loo xam ne wasala àgg na ilayhi ba ca yóor ga fa hiya moom al mamoomatu mooy jam-jamu mamooma fa fiihaa nekk na ca moom sulu subdiyati sulu subdiya su fekkee ne dafa dal ci yax ba ba àgg ca yóor ga nag su boobaa loolu moo tudd jam-jamu mamooma kooku moom ceeru diye lañ ca war a fay moom itam faaw foog fekk moom mamooma day nekk ci bopp ba wala ci jëba kon ceeru diye lañ cay fay wa kazalika naka noonu al jaayifatu jam-jamu jaayifa jam-jamu jaayifa mooy jam-jam boo xam ne sar na ba ca biir ba ñu ko jamee ci gannaaw mu sar ba ca biir ba rek mook jam-jamu mamooma ñoo bokk lañ cay fay te mooy ceeru diye sulu sud diye walaysa fiima duunal moodihati dir muy nekk ci lu yées jam-jamu moodiha ilal ijtihaadu ndare seetuk àttekat ba ijtihaad day fi di farlu waaye seet lañ ci jublu nee na bu fekkee ne kooka la mu ko def agul ci yax bay feeñ mooy yées na moodiha kon téerib moom du ci rëdd dara du ci bind dara day bàyyi àttekat bi mu seet rek la nga xam ne moo ci war mu wax ko ñu fay ko ja wa kasaalika naka noonee fii jiraahi jasadi ci jam-jami yaram mboolem jam-jam yaram yoo xam ne téere bi waxu ci dara mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxuñu ci dara kon attakat bu mooy xool rek ne nañ ci joxe nangam ñu joxe ci nangam. takk-takk bi ci lu mel noonu na ko attakat bay seete bu bëggee xam la ca war day nattale su jëmm joojee nekkan ab jaam ba noppi bañ a amee gaañu gaañu boobee nu xayma cay toll. dal di ne nangam bugal bëtiku seetaat nag bu ci jam-jam boobi nekkee xaymaam nu mu war a toll ñu seet nag diggante yaari xayma yi nu mu toll niki buñ ne su fekkoon ne gaañu gaañu bi nekkul ci moom dana war a mën a jar fukki junni bu ci gaañu gaañu bi nekkee nag dana mën a jar juróom ñeenti junni kon diggante yaari xayma yi benn moo fi dox nit ki nga ne benn junni te loolu xam nga ne ab fukkeel lay tollool benn ab fukkeel li ci fukk kon dañuy daal di wax ne ka gaañ mooy ka tooñ la mu war a fay mooy xusuru diyati fukkeelub diya ndax dañuy seet loola nam toll ñu seet ko ci diya kon nag benn boobu ab fukkeel la buñ ko seetee ci diya muy xusuru diyati kon gaañu gaañu booba kooka war na caa fay fukkeelub diya wala yu xalu deful diyaal jurhun ab jam-jam wala nga ne jurhun ab gaañu gaañu illa ba'dal bur'i ndare ci gannaaw wér ga nee na nag ku gaañ nit duñ ko wax ne ko fayal nangam moo ci war fi saasa di dañuy bàyyi ba xam dina wéram du wér ndax su ci jàllee faatu kon bakkan lay fay kon nag dañuy bàyyi ba mu wér njëkk ñu door ko wax ne ko nangam moo ci war nga fay ko wamaa loo xam ne bari a wér na ala xayri shaynin curl ak ñaaw même maa ci la nga xam ne duunal moodiha ti nekk di yées jam-jamu moodiha fala shay déet dara fii di nekk ci moom maanaam bu fekkee lam ko def yées na moo di xam maanaam gaañ na ko waaye yax ba sax feeñutoon te it kooka tëyu ko woon dem na ba wéritam te amul benn ñaawaay kon loola dara waru ca moom ma ko defoon dis ko ca teg dara dis ko ci yaraale sax waaye nag bu fekkee moo ko tayoon boole ca moom des na ko yar buñ ko faydawul dara itam du tee ñu yar ko ndax tey gam ko tey su fekkee ñaaw na nag moom dañ koy àtte atte bi mooy ni mu la ko waxe woon léegi rek nga xam ne dañuy seet mu doonoon ab jaam te ñaawaay boobu nekkul ca moom nu xaymaam di tollu ak bu doon ak jaam ñaawaay boobee nekk ca moom nu muy tollu xam nga ne yaari xayma ya dana wuute ne yaari xayma ya ëppantee nag moom lañ ñu seet lu mu war a toll ci diye ñu fayloo kooka lu toll noona ki bu fekkee dafa toll fukkee lu diye niñ ko misaali woon léegi loolu lay fay bu toll xumu sub diye itam moom ma tooñ loolu lay fay lépp loo xam nag moom yonante bi wax nañ ci joxe nangam ba noppi nag ku ko def nit rek faaw nga fay ko loolu yonante bi wax moom moo xam wir na te ñaaw moo xam wir na te ñaawut jam-jam moo xam dañ caa boole day fay li ci yonante bi wax ba noppi te bu ca boolee am ab ñaawaay moom moo biha ñu seet la ci ñaawaay ba wàññi mu fay ko boole ca yi ci des nag moom bu fekkee du moo biha bu ñaaw ak bu ñàkk ñaaw ci yam ndegam yonante bi wax na lañ cey joxe rek la wax rek lañ cey joxe wa fil jiraahi nekk na ci jam-jam yi ak xisaa su fayantooga fil hamdi ca tey ga illaa fil mataalifi ndare ca sànkukaay ya di caa jublu sànkukaay yi bakkan yi maa li nga xam ne buñ ko defee nit xëy na mu dee mislul ma'mumati kem ma'muma wal jaayifati ak jaayifa wal munaqilati ak munaqila wal faxiisi ak dagg ab lupp wal unsayeeni ak ñaari waa yàlla ya wa sulbi ak ndigg wa naaf yi ak lu mel ne moom fa fii kulli zaalika nekk na ci mboolem loolee addiyatu diya nee na mboolem xeeti jam-jam yi lu ci waay jam nit te tey ko rek su fekkee mënees na koo fayul dañ koy fayul waaye nag bu dee loo xam ne bakkan mën na caa des moom lim ko def moom bakkanam demu ci mooy tooñ na ko waaye moom faratuwut waaye lam ko def daal réeré yaay boo xam ne koo fayu ci moom mi moom xëy na bakkanam des ca mel ne jam-jam maa moom bi nga waxoon mooy jam ko ba àgg ci yur ga mbaa jaay fa fi lu waxaan nga ko léegi mooy lan ak mu naqi la ak lu ñu dagg ab lupp ak dagg ay ñaari waay yàlla wala damm ndigg yu mel noonu ku ko def nit sam te tey ko du tax ñu fayu ci yow ndax dañuy bañ ndegam kenn nga ko def moom faatuwut xëy na yow ku la ko def yow nga faatu kon dañuy bàyyi rek te fay lañ ci war a fay ba tax mu ni yëpp dañuy fay diyee ji rek wala taxmilu du yenu alxaaqilatu giir ga xatt la xamdin rayuk tey wala ictiraafan du caageenu tudd bihi ca rey ga nee na kat koo xam ne rey ga mu rey moo ko tey bu fekkee fay wuñ ci moom moo xam dañ koo baal moo xam daa am lu tee ñu fayu ci moom ci yoon dega moo ko tey rek moom dong mooy fay lañ ca war a fay waaye fayu ba mbokk duñ ko ci fayle dara bu fekkee ne itam la soxal rey nga moom moo ko wax ndax moo wax ci tey bakkanam ni man kat maa ko rey waaye soxewul ci ay seeri soxewul ci xasaamatu moom moo wax rek maa rey diw kon su boobaa moom dong mooy fay la ca war waaye famille bu mbokk duñ ko fay la dara giir gi kay lam war a fayle kooka mooy bu fekkee ne la saxal rey ga mooy ci ay seere wala xasaamatu waaw kay foofu la giir ga di faylee kooka mu mel ne kenn ci ñoom rek ku nekk gardu ba mat waaye ndeka moom moo rey te tey wala boog moo wax ne man maa ko def su boobaa moom rek mooy fay wa taxmilu dana yenu min jiraahil xata yi ci jam-jam yi tëyeeful maa la nga xam ne kaana nekk na xadra sulusi di kem ceer ba fa ak sara topp lu ko ëpp ne wamaa loo xam ne kaana nekk na duuna sulusi di yees ceer ba fa fii maalil jaani nekk na ci alali aji tooñ ja famille bi muy giir ga lañuy yanule waaj a tooñ mooy loo xam ne mat na ceerub diyee mbaa mu ëpp ko waaye loo xam ne matul sax ceerub diyee moom mu waaj ci boppam moo koy fayal boppam waaye kenn du ko fayle wa amal ma'mumatu daal ma'muma wal jaayifatu ak jaayifa xamdan ci tey fa qaala wax na malikul malik ne dalika loolee alal axirati war na giir ga fa qaala waxaat na it aydan ba tey ne inna dalika naka loolee fi maalihi nekk na ci alalam illaa an yakoona na rek bu dafa nekk xaadiman di aji ñàkk fa taxmiluhu kon dana ko yenu alxaaqilatu giir ga li annahuma ngir naka ñoom ñaar laa yuqaadu déeful fayantoo min hamdihima seenu tey jam-jamu ma amoo maag jaayu fa bu ko kooka tayee tey ne woon moom moom mu ñàkkoo tey ñooye moom deesu ko fayantoo ndax dañuy bañ biñ ko fayoo ci moom mu far faatu lu mel noonu Malik da caa wax yaari wax benn ba mooy moom ma tooñ na ko jirga fayle ñu fay kooka mu matal alalam ndax ndegam kenn du ko fayul kon waris naa jéem fay ko alal ba mu mat jooju wax lañ sukkandikoo waxu ñaaral ba nag mooy malik dane su fekkee ne waa ji am na alal jum mën a fayee kon menn moom dong mooy fay waaye fami ba duñ ko fayle bu fekkee daa ñàkk nag fami ba door koo fayle ndax bañ kañu tooñ ñàkk ñaari yoon waaye jàppal ne wax jim njëkk wax mooy mu am alal ak mu ñàkk am alal ñooye moom moo jiir ga ñoo koy bokk fay rek jooju wax lañu sukkandikoo fa kazalika naka noone maa lépp loo xam ne balaxa jot na sulu sa diyati sulu sub diye mim maa ci la nga mim maa ci la nga xam ne laa yuqaadu deful fayantoo min fu ci moom li ànd hoo ngir naka moom mutulifu ndey aji sànke lépp loo xam ne rek lépp loo xam ne rek lañ ca war a fay mat na sulu sub diye waaye ka ko def kenn du fayu ci moom ndax bañ ba kanam des ca ba tey loolu noonu la mel ne koo giir ga yanu ànd ak waa ji nga xam ne moo tooñ ndax kañ tooñ du néew néew mu am alal